directeur. Il y a eu 58. Pierre. Pierre. Il y a eu 50. Et ouais, ouais, ouais. 58 factures d'un montant de 421 millions 200. Adam Fall, Majambal, de de Majambal revient à la charge. Voilà. Il y a Dédé, réponse de, de, de, de, de la Nena, vous savez, il y a des gens qui ont dit que Basurou Diomaye Diakhar Faye, il n'y a pas de Basurou Diomaye Diakhar Faye, intuitif personnel. c'est la présidence de la République qui doit qui doit 421 millions à Kinfar Fahd Palace. Mhm. ne ko nag soo leen bëggee mën naa leen jox sax et cetera mhm. très bien. loolu leer c'est pas la personne. soo leen bëggee ma tegal leen facture yi ba loolu la ba ma jàmbal wax de. soo leen mhm. bëggee ma jox leen facture yi. soo leen continuer dinaa génn facture yi teg. Oh, suñu continuer di weddi. waaw soo leen continuer di weddi. ma génn facture yi teg. ba pare jox leen et 58 factures là. 400 jaroon na dagg lii jaroon na dagg. D'accord d'accord d'accord. D'accord d'accord. na dagg ko dagg ko mhm. Sénégal. Mhm. régime de simple déclaration lañ amoon. loolu moo doon suñu ndam ñun. régime ñëw na. gis nga tey am na ay dëkk yoo xam ne pour nga créer fa site internet. waaw parce que gis nga euh, Fatou. Mhm. ñun ñi ngay xeeb nii. Mhm. Hmm? Mhm. ñun dañoo jàngal ay gabonais. dëgg la jàngal ay béninois. yéen de dof rek a leen di xeeb. jàngal ay congolais. maanaam jàngal presque tous les africains. dëkk bu nekk ba léegi. tu as des étudiants yoo xam ne da ngay am ak ñoom relation. ñu lay wax seen dëkk. xam nga man dama tàmmoon leen ne bu ngeen demee seen dëkk yi bu ngeen ñibbee. vous n'avez pas besoin ngeen di liggéey ci télé nationale. créer vos propres sites. Mhm. mais retour yi ñu lay am xam mooy lan dem liggéey ca ca ca télé nationale baa gën a yomb. parce que mhm. contrainte yi ci nekk rek. Mhm. kenn xamul lan la pour ubbi rek télé télé internet. am na benn dëkk boo xam du ma ko du du du ma ko cité. pour bañ suñu yenn relation yi. mais mais dañu may monsieur yow tu crois que yéen seen niveau démocratie ak de liberté de la presse yegg na suñu dëkk bi. mais boo commencé say parent ñoo lay njëkk ne xanaa da ngaa dof tuye yow xanaa tuye fal mm-hmm. boo fi lii boo ko fi defee on te tue on nous tue dama yem y a yaa ngi dégg léegi ñun régime bi ñu amoon nee naa la régime de simple déclaration mm-hmm. xam nga la mooy régime de simple déclaration mm-hmm. te ba léegi sax moo am si biir régime de simple déclaration ma jox leen benn exemple moo am si créer école oui ñu ne boo xasee ba déclarer ah en attendant tu peux exercer. le mm-hmm. le système de simple déclaration loolu le am tam ci presse. Mm-hmm. ñu ne la boo defee les dépôts def les informations. Mm-hmm. à qui de droit. -hmm. ngi dit te qui de droit la justice daf ci am. daf am le ministère de l'information daf ci am wàll. le préfet. daf si am wàll le procureur daf si am wàll mairie bi nga fi nga localité bi nga nekk mairie ba mhm. dafa il doit informé mhm. waa loolu yëpp boo ko defee ñu ne la léegi nag créer mhm. soo créer loolu mooy pour presse écrite boo demee si rajo télé ñu ne la nag bii nag da ngay remplir cahier de charge bi parce que affaire fréquence la ku nekk mënul ñëw di taal waaw léegi est-ce que loolu yëpp mën nañ la ko teg Nella, l'entreprise est une entreprise de presse Il y a au moins cinq professionnels mhm. avec des contrats dûment signés De nos su nga remplir cahier de charge bi mhm. def lépp nous yeewu suba teel ñu délinquant mais nous, ne noonu tu peux pas créer une radio une télé ou un organe de presse dans ce pays en bonne et due forme Oui, mhm. ba légal ko léegi ñu toog parce que tout simplement aujourd'hui Sonko est venu au pouvoir bëggu andi yenn ni jafé jafé mu yaw suba teel mu ne la hein ah, non non légui légui yenn ñi fi nekkon sax falew ma len c'est-à-dire les directeurs de la communication les ministres les lan ñëpp ñi signé won ñom ñom ñom ñom Cheikh Bamba djé ñom Guirassy ñoom mm. taw Abdou Diouf. Mm. Euh, nu mu tudd ay sal sal yeen ñëw seen signature valable tout sama yoon nekkul suñu signature rek mo valable moy le ministre de la communication bu tay bi moy joxe joxewaat départ képp ku fi nekkon télé képp fu nekkon radio demal andi say keuy mais xam nga xam nga xam nga li wax continuité de l'état mm. xana yow di nga ne. légui kuy créé ci. mais duuru nak nag. mais mo mu rek. mais lolu waru la bett de. wa légui légui loolu bu si patron de presse yi bu ñu ko defee seen ñàkk fayda la ñu on Aïssatou Diop Fall lu mu wax mm-hmm. loolu laa d'accord mm-hmm. man na je ne déclare rien du tout mm-hmm. xam nga man damay génnee ñaari journal fii Sénégal waxuñu woon journal da nga koy def